sëñ bi na nga def. waaw ah, soxna si maa ngi sant bu baax a baax. maa ngi ci jàmm. alhamdulilah di sant yàlla bu baax. Eh, ndax nga gis vingt cinq joueurs yi nga xam ne moom la si Cissé sélectionné. Ah, mën naa ne que ni dégg naa vingt cinq joueurs yi sélectionné nañ leen ba pare mais il manque Kara Mbodj quoi mm-hmm. te normalement dafa waroon a ñëw. Mm-hmm. voilà mais tamit euh, loolu lañ doon xaar ko gis si Kara mais gisuñu ko ci quoi. bon vingt cinq jours yi man li ma ci gis mooy ñoom ñëpp am nañ talent certes soo gisee entraîneur moom su waree def ay sélection day métti te Sénégal fii nii suñuy xool kenn ku ne mën nga indi sa liste kon bu dee def na soam rek nañ ko bàyyi ak soam léegi moom xam na li muy def Aliou Cissé tamit moom tamit gaynde la en fait tamit nañ ko nañ ko jàppale quoi ànd ànd ak moom dooleel ko. te xam ni moom moom lañ teg ci boppu équipe bi kon na ko gérer rek ñu ngi koy ñaanal quoi. déjà man euh, xoolooguma liste bi sax parce que liggéey bi moo tax jël guma sama temps xool liste bi mais coow li bëri na quoi mais genre presque tout tour tourne autour de Kara Mbodj quoi li tax demul mais sénégalais dañu war a xam benn affaire quoi bu gaa yi jógee fii di dem coupe d'Afrique c'est pour le peuple pas pour des intérêts personnels quoi. Kara mënul euh, jóge si blessure ba pare xam nga footballu match yu bëri ñu bëgg ko yóbbu loolu risque la quoi nañ xool beneen booy bu ko mën a remplacer ñu teg ko parce que c'est le Sénégal qui gagne quoi waaw man loolu laa gis quoi. waa peut-être tamit mën na nekk parce que tamit mën nañ ne Aliou Cissé des fois am na nu muy nu muy comporté woo ak équipe bi day yaakaar que ni maanaam moom mën na def lépp te des fois aussi day am joueur yoo xamante ne dañ leen soxla suñu terrain quoi man noonu laa ko gisee en tant que sénégalais quoi. waaw Aliou Cissé boo xoolee lim sélectionné nii loolu la am. li mu am rek moom la sélectionné parce que booy yëpp yàgg na nekk ak ñoom yàgg na leen woo équipe nationale depuis mu ñëw équipe nationale ba léegi boo xoolee booy yi lay fubalandoo ñi ñi ñi ci rax bëriwul classe mbay ñaay ñoo ñoo nekk bees moo tax lim yóbbu nii loolu kese loolu kese la am euh, boo xoolee li ci xaw a ñuul mooy absence su Kara ak Cheikh Ndoye te Kara gis nga ko dafa changé woon club Nantes delluwaat diggante boobu nekkul en bi mu nekk demoon dafa yóbbaale blessure moo ko jàpp ba xañ ko euh, sélection équipe nationale Cheikh Ndoye dafa nekk ci blessure kon li mu am ni loolu c'est normal lii rek la war a yóbbu su yóbbuwul li xaw ma leneen lu muy yóbbu. joueur yu ñu sélectionné moom su ma amee lu ma leen mooy que ni dañu war a xam ni maanaam euh, population bi yëpp peuple bi moo nekk seen ginnaaw te tamit drapeau Sénégal moo nekk seen kaw moo nekk seen kanam. kon dañ war a sigil suñu réew quoi joxe ci luñ mën ak luñ mënul quoi voilà mu ngi mel ni comme ku ci euh, sa sëriñ ne maanaam il faut que nga nir ma benn gàtt tey tey foo mën a dem bu dee doo fanaan sax si àll bi euh, xaw ma fooy mënti fanaan mais di nga di gàtt kon maanaam sénégalais dañ sax équipe nationale bi ñëndil ñu coupe quoi incha allah loolu lañ bëgg. non peut-être mën a am embarras de choix léegi peut-être entre temps mën na xool ndax dina wàññi. wala su dul loolu tamit peut-être mu mu doon moom moom kii wam nu mu tuddati stratégie mu xam rek boobu yóbboo parce que tamit plus de joueurs yàqul dara ko bon ça dépend tamit si lu ñi si kaw di wax mais bu nekkee loolu c'est normal nangu nañ ko man yàqul dara si man quoi. non xëy na du question ñàkk choix xëy na moom dafa ak tactique tactique am tactique de jeu bi muy bi muy joué moom xëy na moom loolu la jàpp ne moom la war a def mais su fekkee ne dafa dem bañ laaj ko 23 moom dina mën a dindi 2. légui daal di yóbbu 23 jours am te boobaa moom xam na ñaar yi muy dindi mais sax mu Sénégal ko laaj ku ne mën na joxe choix am. yow yow choix lan la yow bu doon dindi kan ak kan lay dindi. man sama choix bon Sadi Sadi Ngom mën na dem kii ni ñu koy waxatee nu mu tuddati Sadi Thioub mën na dem ak euh, xaw ma nan Sarr. santi santi Sarr. lu tax nga nga nga choisir ñu dindi ñaar ñooñu. non puisque euh, ñoom ñaar soo gisee seen seen jeu. ak par rapport ak yeneen yeneen gars yi moom c'est diamétralement opposé te xam nga santi duñ koy waxatee santi Sarr moom bon club am sax mooy mooy loolu quoi dañ fay dox bëriwul genre kon mooy loolu te Karambo tamit aussi war na mën ñëw gisuñu woon lu tax mu bañ a ñëw ndax am na certes yoo xam ne Aliou Cissé ay coow yu ndaw ndawaan yi warul tax mu bàyyi Karambo pour bañ koo indi quoi man loolu laa gis ci lisam mais sax conseil bon nañ jàppoo àndandoo dóor xàccandoo. xam ni Sénégal bépp benn la na leen ñëpp ñaanal ñu daal di dem xam ne ay gaynde lañu te ñun ñëpp ay gaynde lañu fii Sénégal koo gis ku ne gaynde la kon li ñu bàkkee mooy Sénégal njaay gaynde njaay kon dañuy gérer ñun ñëpp ñu àndandoo supporter leen ñun ñoo ngi ci seen ginnaaw di leen wax allez les xam nga di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen ñaanal fa ñu jëm ndam yi bëree bëri ñu indi liñ bëgg indi waaw. merci beaucoup ok merci beaucoup